Bienvenue sur Salam Vision. مدعاة العدفاني يا سيدي يا سيدي يا سيدي من لي بمثلك للفؤاد العالي يا سيدي يا سيدي يا سيدي Cheikh Tidiane mu fay ko lewi jamono ma nga naan jazaaka rabbuka an banil awtaani wax leen amiin summa salaatu ala nabi wa alihi min rabbi fi rabbi al anaani ma qaala ahmadu li Tidiane munsidan fa ilayka yabna mahamadi naada ci li ngay gis ci li ngay gis mooy ci li nga xamante ne ci lay jëngu buy faj li muy faj mooy day fajal am na yeneen yu bari yoo xam ne nag mu ngi ci biir mais mënuma leen a nettal lépp parce que li tax mënuma leen nettal lépp dafa am loo xam ne dama fee fekk si tax nag dañ ko bett li tax nag ñu bett ko mooy dafa am nag ci loo xamante nag da cay jóge ñu ñëw toog ak moom sëñ bi ñu ngi lay siyaar. danañ mm-hmm. euh, dafa am lu ma jaaxal ci jamono ji mm-hmm. te ñu bañ dañ koy laam-laamee koo wax mu ne la sëñ Souleymane sëñ Souleymane rab jinne lan maanaam lan moo la ci maanaam maanaam li tax nga nekk ci di ci def ay combat yu wóor ba ñëpp di ko coow sëñ Souleymane man fi ma toog sax damaa commencé tit ndax sama tànk yi sax mënatul taxaw. Mm. sëñ Souleymane lan la. waa sant yàlla waa gars yi léegi ñuy wax naan rab rab rab moom am na ku naan rab amul daa fekk rab dalaa duggut mais rab am na rab nag faj yoon dafa am. il faut na am yoon bi yoon bi nag soo ko bëggee xam ne gëstu xam-xam sa gëstu xam-xam loo bëgg suñu borom subhaanahu wa taala di dimbali sa kàttanu yàlla dégg nga ñu ni loolu rab na soo ko bëggee faj dafa am loo xam ne ay xaatim la xaatimu Sulaymaan yi yi xam ne moom laay boole ay alquraan aayat alquraan ay turi yàlla laa koy boole bis boo ñëwee mii samedi mii dimanche mii lundi ba ba ba ba une semaine bi daal une semaine si kii bi jour yi. si kàttanu yàlla maa xam bis boo ñëwee ak gàllaay gi ma lay jox bokku te si kàttanu yàlla maa xam ku si mënut a yore rab yi si kàttanu yàlla soo ñëwee nga dindi ko si kàttanu yàlla maa xam te duma génn alquran karim incha allah rabbi lépp alquran la ndax yàlla dimbali nañu ñun ñu mun duñ ko def mais alquran moom yàlla dénk nañu mayuñu du loo li ñu dénk rek ñu ngi yàlla ñu ngi si def résultat rab nag moom ku mu ko mënta jàpp ba ànd na ko di yàlla boo ñëwee dindi ko yàlla baax incha allah te du ma génn alquran. ndeysaan nga ni doo ci génn ci alquran. Mm-hmm. kon a alquran maanaam kon buñ ko xaymaa rek. secret yi si nekk bari na. Mhm. mais ñu bari dañ naan dañuy faj rab dañuy faj jinne dañuy faj dara mais ci beneen ci beneen mel. Mhm. ci beneen fajin mais yow ci alxuraan bi nga xamante ni ci ngay liggéey. Mhm. nga ne amoo samedi amoo dimanche amoo lundi. ak jour bu leen nit bettee. nga dindi li nekk ci moom téye ko ba nga xamante ni maanaam bu ñibbee ta maanaam li nga xamante ni moo nekkoon ci moom mu deñ. tey secret bi nga xamante yow yaa ngi koy jëfee di ko def tey ci alxuraan bi. tey maanaam yow wala loo doon la. Hmm. wala lu la fekk si la. man moom yàlla dama dimbali te benn côté damaa doon sama affaire mbaam mais nag doon na jot doyu ma fan yii paase nii damaa génn dem jàng jiwaat ndax jàng du wees ba léegi bay wax yow bi damay jàng xam-xam soo ko bëggee a ngay nangoo génn nangoo jàng soo jàngee yàlla xamal la te la yàlla xamalee ne mën a fekk toog. am na loo xam ne bëgg naa ko maa ngi si sant yàlla muy si wàllu ragal lépp bu maaxu xam naa ko te maa ngi koy yor samay loxo boo sa ay sa xol du mhm. léegi mhm. léegi léeg da ngay gis combat yi bañ bi am mhm. mooy ñoo xam te ni dañuy faj Mhm. ay rab ak ay jinne mais ci guddi gi jotee ñoom dañuy am problème. Mhm. léeg sax boo toggee ak ñoom sax dañoo koy wax danaa parce que démb daa fekk sëriñ ba daa waajurul boppam. sëriñ sëriñ daa mhm. tëdd si lan. borom bopp piir sa waaye waxuma sëriñ piir de waaye borom bopp piir du tëdd si sëriñ kurus lay yor doo tëdd si trois heures du matin wala war naa fekk si jaara say nelaw day néew du la fay ay koppar yu weex taal ñu ne la yeexa jopay la tëdd sa kaw dafa war a ma sëkk yombul nag waaye soo ko joxee rek suñu borom dina la fee may doo bëgg sa àdduna xam-xam moom jàngil mais sëriñ moom pour akaay rab topp la daal rab yi laa solo la noonu nangam a nangam daa fekk da nga amul leeru yàlla man du ma am yàlla waaye yàlla loo xam a xam ko si rab si tey ñu bari tey ji dañuy mais boo waxee ñu ne dañ ko dondu seen i maam dondu seen tax na ñoom ñu koy jëfee te wuñ ko ñooñu tey ji maanaam xëy na nag danañ ko fekkee xëy na tamit ñu am loo xam ne tamit ngi ci ñoom mais nga yaakaar ne jàng bi ak dooleeku bi ak maanaam ci li nga xamante ni ci ngay gën a yëngu léeg-léeg yow boo toogee ba duñ ne indi maanaam doo am client boo xamante ni yow da ngay am problème sa diggante ak moom maanaam ci faj bi. <laughs> maa ngi sant yàlla nag waaye gàcce naa sama bopp si baaxu yàlla. loo mun damaa la munuma ko. benn maanaam nit ki su ñëwee soo nekkee jàpp dina xam ne kii dañ ko fekkee rab bi dëgg daa dëgër bopp dafa am loo xam ay aayat ak Quraan la aaya alquran yooyu la dañ xadat ba si def ko si bërigo man may waajo sama bopp ku ñëw dafay fekk gis na bërigo bi day gis nii ay turi yàlla laa ko pegee te rab bu si dugg si kàttanu yàlla maa xam soo ñëmee dëgg soo taxawee sama tubaab ne fàttuwaat ne sama mbiru bi di liggéey te mu génn alquran gis na maanaam sëriñ sëriñ doon lu baax na mën na fekk say affaire maam la doon ko loolu mën na kaa doon mais soo doon day dem jàngi ci daara doon na ba dañ kaa doon rek mën na laa dugg ndax rab caay goo xam ne su na ma wax loo tey ak lu ma lay wax loo suba doon benn caay-caay googu da kaa yor day caay googu su ko yoree nag yow miy sëñ nga xam ne day jaamu yàlla da ngay bàyyi yu bëri dem fexe jàkku ji jàngi ji gëstu xam-xam te nag moytu ni bëri ak sobe sëriñ day moytu sobe. fu mu toll dafa war a yàlla heure waxtu waru ka raw waaye da sëriñ ngaa sëriñ ngaa sëriñ ngaa te doo julli doo def dara doo de sëriñ ngaa ku ñëw bëgg faj sa aajo yii de yàlla yi si des de bëgg faj mu tëral sëriñ day jàngi ji moom ba ma ba si yàlla ne kat kii nii gën naa kaa dégg dégg nga loolu noonu yëpp maanaam boog wàllu oh, faj soo bëggee dugg bëgg kaa am dëgg il fokk na jàngi daara soo jàngee daara pare bu wàccee alquran ah bu moo day nana dem gëstu ju xam-xam asrar da nga koy jàng ji mën kaa xam doo mokkul asrar doo mën a faj rab tey loolu kay leer na nañu wallaahi ko dina ko dégg noonu mais mais foofu buñ fa génnee tuuti parce que wax nga ci lu am solo wane nga ci jàngat aussi tamit nag xamal xamee nga tamit tamit lu ci bari mais ci wàllu seet ci wàllum set. Mm. wàllum set. Mm. am ñoo xamante ne dañu seetali si mm-hmm. am ñoo xamante ne da toog ñu seetal la léegi lañ nga dem. Mm-hmm. mais tey jii bu kenn ñëwoon tey ñu ne seetal ma ci li si xaar nga koy seetalee. Mm-hmm. waree na. loolu man yàlla baaxal na ma yàlla baaxal na ma sa baaxam. ma déggee sa baat xam naa lu nekk si yow. loolu moom yàlla baaxal na ma nit ki may woo léegi. te mbaaxu yàlla léegi léegi nii mën na ma taxaw mën na nangam moo la jàpp te lu ma lay wax bu ànd na loolu yàlla du génn. dañuy génn fenn lu ko lay wax loolu yaa man dama seet am ay résultats loolu ay ay ay du benn de ma bii dem di métti ma nekk nangam ak nangam la dama seen digg ëtt na woo ma ma wax la galaaj bi fu ne. nit woo ma. Mhm. su ma wóolu si woon dina ma tudd turam. Mhm. mu woo ma téléphone mu ne ma sa mbir bi day métti bopp bi day métti nanga ma nanga man ka dama si digg ëtt am na garab gu fa ne ne suba si taatu garab gi am na gàllaaj bi béjjën bu ñuul kooku mën fa ne buñ ko wëñ ko ni nga ko ëwee wëñ ko xonk nga sulli ko soo ko sulee sa bopp bi tane te sa moytu sëy sàngam dina tas te guddi googu noonu koo koo ko defoon gàllaaj boobu sëy moo tas maanaam moom maanaam seet dafa am seet dañ koy dañ koy dañay jàng waaye am na yoo xam nañ koy ñeme ak sa diggante sa borom la yàlla moo la ko may basira soo ko amee yenn yi du la jaax doo yëg fi naan day yëgati fooy di seet ak ay ne nangam la nangam loolu ay deuxième la ak yooyu gëmatuma waaye nan waxtu la leen a ko dégg noonu sëñ bi dafa mel ni sax affaire yi ngay koy commencé a am na loo xam ne fekk naa ko fi fekk naa fi nga man ko ci seen waaye numéro maa tudd parce que damay bañ kat ñu dóor ma baa ñu ma moo tax ñu téye sama njëriñ nga dootuma wax mhm. mais sëñ bi secret bi fekk nii ndaal yi lan la dañ ci seet wala lan la. njàq yi ne ndaal yi day ah dafa nekk loo xam ne rek ay mbir la jooni jooni la. wàllu alal lay dox. wàllu alal ah ak kaaraay ngi dëgg dafa ànd na ndomb moom. dafa ànd na waaw ni ma koy defal dafa bëri bëri bëri bëri dama koy teg waaye wàllu xëccoo. muy wàllu gouvernement wala lu mu mën a doon ne xëccoo wala wàllu place te xëccoo ah du ma ni maa fa teg loxo waaye kàttanu yàlla maa ko su ma si défendre du ma la diire quinze du ma la diire vingt cinq ndax mënu moom moom bisu yàlla mais la may dafa moom li nga gis def na ma yàq data te alal moom kenn mënu kàttee ko doo ko am su baaxu yàlla loolu mooy yàlla mais beneen leket bi la ci nekk mooy fekk naa ci xaalis xaalis te man xaalis gi li ma ci jaaxal mooy xaalis dafa nekk ci kaw mais ba léegi xaalis daanul xaalis du ko téye wala lan la wala dafa am lu fa nekk téye ko secret bi la loolu. loolu li na xaalis bi daa toog jàpp njàmbur am na waaye du dara. Ah, waaw mais sëñ bi noonu nee na lan ñoom lii xaalis la xaalis xaalis la am nga la maanaam loolu moom yàgg na fi ndax bee ba fi ñëkk léegi moo fi nekk. te yii yëpp dañuy seet yii yëpp ay dem béykat bi nii fi ne instant yi ni si dee maanaam boobu koom-koom doo mën a dugg si wàllu xaalis mhm. am na loo xam ne su ma ko si juróom-juróom yi nii si turu yàlla mhm. su ma ko toogee si kattanu yàlla maa xam sa tur ah. bu neexee yàlla mhm. xaalis moom kër mun kaatee ba dox am na ñu commenté suuf ne nañ seen bi maanaam li jëm ci wàllu kayit ba xam sëñ bi da koy ñaan wala parce que am na ñuy commencé suuf parce que am ñu bari ñoo xam ne moom fi tey xam naa ne kii tukki a jël yoonam pour dimbali ko pour mu que man xam naa ne moo fi fekk moo may quoi est-ce que tey ji ñoom taxaw est-ce que sëñ pare na leen wàllu kente yi yàlla may na ma fi tànn tànnam mbax ah, tànnam bu mu fi defee lu mu fi def ba pare si kàttan yàlla maa ni wala ñu ne géej bi géej na. sëñ bi dégguma la de. yàlla dénk nañu. si uh-huh. tànnam ma. lu mu si defee lu mu si def ba pare si kàttan yàlla maa xam ba saraxe ko ba saraxe ko bu yàlla delloo woon la kii di géej. yéen ko doon commenté lii la ko dégg sëñ bi ko wax mais sëñ man man personnel man. Mm-hmm, mm-hmm. man bi nga xamante ni may wax ak yow. Mm-hmm. bu jógee ci lii nag xëy na nag am na far naa ci dugg ak yow nag. waaye nag gars yi bu leen ne carrément sama kii de damay bàyyi mu sedd parce que li ma fi fekk tax moo tax. mais sëñ bi. li jëm ci wàllum li nga xamante ni mooy jamono jii. ni dëkk bi mel. tey Sénégal football ñu. xam a daan wax waxatuñu. tey ma bëgg nga am na ma ci leer tuuti. Sénégal saa yi génn na ngir war a jawante incha allahu rabbi mhm. mais équipe nationale saa yi ko gisee gars yi dañuy commencé yàq wala gëm ngeen ni saa yi ni ñu tàmbalee nii rafet na wala rafet na. en tout daal lu mu mën a xamal ba Sénégal njaay lu mu si mën a xam mooy su xol yi àndee doon benn yàlla mën nañu dimbali. gis naa na loo xam ne maanaam suñu borom sa dara loo xam ne su borom mën na si def. ndax gis naa fi ay ñaankat yoo xam ne wax dëgg fi nekk yàlla ñoom yàlla may na leen dama nangul naa seen xam-xam kenn ki sax maa ngi koy nuyu ba à passage sëñ Babacar laay dëkk Yoof ku baax la ku baax la yàlla baaxal si wàllu ñaan kon yooyu noonu maanaam ba suñu borom dogo yàlla may leen si wàllu ñaan nekk si ruq du jaamu yàlla ñu ñaan loolu yàlla du leen nangu loolu yàlla la mais football moom moom làmbayam alalu jinne la que a dàq topp tegtal si làmb dàq laa topp tegtal si fubal koo xool a dàq indi victoire bii bii nii nii nii ay sant la mais yàlla baaxal na ñu bëri yàlla may na leen basiira ñu xam ne xam na la fa xew kon suñu borom dogal na yàlla yàlla fay leen seen yéene ci équipe bi ndax dëgg yàlla lii ñu def nii moom ànd doon benn yàlla yàlla saxal te bàkkee lii moom rafetlu naa ko moom nan topp nan topp te te topp sarax sarax dafa baax si nit day fàgg sax dee waxuma laat leneen kon lii mooy nga gis ni équipe nationale mu def nii baax na yàlla yàlla gën a yokk ndax bii passé nii ñu bëri laaj na Messi ñeenti nit laa si wax noppi te ñooñu tey jii fii nag añee sama kër gii mais am na yoo xam ñun ñoo ko dul wax fekk si média yi naan diw ay diw di lay doon loolu loolu da nga kaa wees loolu ku bees moo koy wax waaye léegi loolu da nga kaa wees am na loo xam ne yàlla la koy may da koy wax xam-xam dafa am loo xam ne maanaam boo ko asrar nëbbatu la ndég la léegi secret boo nee yàlla xamal na secret ba da waxee ko est-ce que secret ba am na njëriñ ok fan yi ci ginnaaw coono bari bari woon ba ay bakkan yu bari faatu ci mhm. muy Sonko Adji Sarr <laughs> coono bari lool ba ay bakkan yu bari faatu ci tey ji ñu jëlaat loolu nga soxal ko teg ko ne tey ji ñu xëyaat tey yi mhm. bëgg yëkkatiwaat dossier bi ba tax tey ñu convoqué waat ko tey yow Ousmane Sonko yi moom dina dem wuy ji wala moom du dem wuy ji yal na yàlla def jàmm yal na yàlla def si jàmm te yàlla def si noxul feet si bàkkee rent bi mais Sonko ko nga ko bàyyi nga ni Sonko ko na nga ko bàyyi lu tax suñ bi nga ni Sonko nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi falaayam ay mbiram. Ah. nañ ko bàyyi tekk suuf suñu bëggee jàmm ndax lu mu àndal. Mm-hmm. lu mu àndal dafa day waar. Morog bugguma soo wax ay mbiram sax mais ñu ko encadré ñoo bëri mystique te suñ ko bàyyi wulee bakkan yu bëri rotaat. mais sëñ bi sëñ bi li fi a am ci ginnaaw weesu ba ay bakkan yu bari faatu ci ba léegi Sonko demul wuy di ba léegi Sonko kenn mënu ko teg. tey jii Sonko ñu xobewaat ko tey jii lu mel ni amaat kon est-ce que jotul fi nekk nii état bi génn ci wàllum dossier Sonko. président maa ngi koy nuyu dëkk ziar na maytu. léegi Macky Sall président na maytu. yàlla na ko yàlla dafa jàmm bàkk yeneen mais Sonko teg yooyu yooyu tax bëgg moo si di wax. ay affaire Sonko ak ay adversaire la yooyu yoon bëgguma fee wax mais dossier bi nañ ko teg ci suuf suñu bëggee noppal suñuy doom yi bëgg noppal suñuy raq yi bëgg noppal suñuy suñuy mag yi nañ ko teg ci suuf te may ko jàmm ku war a falu deel na fal sagam yàllaay fale ku si gën nag yàlla fi yàlla teg te bàkk yonent bi faraay allah akbar yéen a ko dégg kon état seetaan leen bu baax baax parce que gis nga jamono ji ñu toll nii ñaan ñu yàlla di dundaat li nga xamante ni mooy li fi jotoon am ci ginnaaw magasin yi bari daaj nañ leen kër yi bari yàq nañ leen xam nga ñu ci bari faatu nañu ba ci man mii di wax ak yéen sama xarit moo doon ànd suba ak ngoon seex seex Tidiane maa ngi koy nuyu maanaam di nuyu ay mbokkam waaye moom ci lim baax nañ koy jàll baax a baax parce que kooku laa doon àndal suba ak ngoon ci affaire Adji la gaañoo kon ay mbokkam maa lañ leen koy jàll parce que suba ak ngoon ñoo doon ànd léegi nag ñu jëmaat ci beneen affaire ba léegi. su ma génnee ci loolu mais lu jëm ci wàllu ndox mi ba léegi laa bëgg ñu jëm ci mais xaatim yi ma xamal ni fekk naa ko ci suuf te xam ne aliou bi moo nekk ci kawam gis naa ci ay bind bind yoo xamante ne ay bind yu jaxasoo la mu yéeme sëñ bi loolu maanaam ci wàllum jinne ji la ba léegi wala ci wàllum seet si la wala ci wàllum la. nu ma ay fet ràmm ni ni ni ni ni tomb gis tax a feetee waaw sëñ bi am na luy wax ci suuf lan mooy damaa xaar am lu ma jàkkaarlool am lu wax ci suuf lan la man man ba léegi ba léegi man sëñ bi li wax xaw ma ko de léegi dara bi dafa baax sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam dafa baax fi yéen yaa ngi koy soxla du koy. non man ma sëñ bi tudd foofu am lu wax man ba léegi li wax laay gëstu lu mu doon <coughs> yàlla def na fi mbéy mais bii jën yi parce que damaa dugg a dugg te damaa gis tamit ma ne sëñ bi bii jën ma gis fii. béjjën bi dara ay kaaraange ndongo la exactement bii bii moom yàgg na moom bii moom kaaraange la. béjjën bi fekkoon ni tey jinne daa jàpp ne jinne sayaatiin. Mhm. yoo wax waxi dem. Mhm. soo ñëwee léegi da ngay wax. allahu akbar. te kàttan yàlla baaxam. mais am na ay xeer yu fi gis xeer ak benn bant bant boo xam ne dañ ko rëdd. def ci ay tere tere yu nu non loolu moom pour kii pour loolu pour xëccoo la koy saa su may kii rek dafa am loo xam ne moom laa soxlaa xëy jaaree. samay bagages bopp wecc ko fee xëy na wecc ko foofu rek. alhamdulilah xëy na fu mu jógee moom xam naa ko bu baax lu tax mu nekk fi dafa yàgg na fi yàgg na fi yàgg na nga fay gis waaw kay. alhamdulilah kon nag yéen a ko dégg am na loo xam ne nag billahi sañu ma cee dugg parce que damay bañ sama gémmiñ tëju.

léegi da wax dégg naa ko kay raba jinne moom bis bu ñëwee fii bu ànd ne dogal yàlla li ma leen di dumaa ci biir néeg bi dem ma génn te kàttana yàlla alhamdulilah yéen a ko dégg tey jii moom ki nga xamante ni mooy jëm ji mi ji lañ fi amoon tey ma bàyyi la nga tàggatu dañ na kàddu yi mais balaa dañ na kàddu yi ma gis ni dafa am benn photo bu nekk sa ginnaaw muy photo sëñ Babacar lu war a secret bi tax nga jël ko teg ko sa ginnaaw. wéeru ci nag jël sa mbaxana bi nag sole ko comme na ko kilifay daan sole. waaw sant yàlla Serigne Babacar Sy sant yàlla ndax la kii ginnaaw yàlla sama ñaar booy moom xettali am na moo tax am na yoo xam ne du ma ko wax lu ma defal. dama koy sant yàlla te guddi yi toll nii état yi ñëw ma tam benn morom ginnaaw yàlla mooma te wax ne ñëpp yàlla yàlla def jàmm yàlla ubbi ñëpp lépp musiba bi ñëw yàlla ko yàlla ful dindi def lépp jàmm si bàkk yeneen yàlla Muhammad mais guddi yi toll nii guddi yi toll nii na denc sa ku mën a denc sa doom dencal sa doom. dafa am lu leneen luy ñëw ci réew mi wala lan. ku mën a denc sa doom dencal sa doom ndax ngelawu seytaane bu ma gis nii jënd seytaane yi ñu wër li ma gis nii yi ñëw ku mu dugg dina bëgg am doom doom tëral wala boog sa moytu sa doom du doom. mais sëñ bi man foofu noonu damay gis léegi xale yu jigéen ñi daanaka soo solatuñ sax yéen. benn benn yére la ñuy jël sol ko ba nga xamante ni sax du mat lan la Serigne Touba Mbacke waxoon dong nga fa ne mu jub jamono dina ñëw jigéen day rafle hmm. mu jub jamono dina ñëw jigéen day lam te maanaam li jigéen xam ne dañoo bëri fi mu ne guddi yi toll jigéen fi mu ne ko si jox. junni wala ñaari junni bu subaa mu jaayoo ngorom day am ngorom. xam nga jeex na. moo tax man ay junne ba dugg yooyu xam lu ko waral corin gu bon léegi jigéen ñi amatuñ valeur seen valeur te suñu moytuwulee guddi yi toll nii muy góor di jigéen ku moytuwul guddi dëgg. bis boo feebaree te amoo sëriñ bu lay yëkkati sa kàttanu yàlla maa xam du baax si ma ne nag ma aar man. yàlla bëri na sutura fi ñëw yàlla suñu borom ànd si kàttanu yàlla. alhamdulilah rabbil alamin nii la ko dégg. bi ñu bàyyi la nga ñaan rek parce que ndeysaan xol yi tamit waaw. non baax na yàlla na yàlla booy dimbali nag yàlla ñëpp aar ñëpp si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma naan lu muy liggéey mooy moo dem julli nag ku si mën ci biir koor gi ni jëm ne si yàlla dugal te yàlla dugal ñu si bismillahi rahmaani rahim jëlee si alhamdulilahi rabil alamin yàlla dafa jàmm dafa jàmm mboolem jullit si waa jullit xam ne ñoo fi dese ni tamit yàlla fi yàlla wecc képp koo xam ne tamit am na ay torof torof yàlla na ko yàlla faxas ko te bàkki Muhammad yaa rabbana yaa malika kawlayni xinnaa ilayhi sarafna darayni amatina allahu ala diini nabi wax qubbu cheikhina imaamil tey bi amina amina sadi wala tuxayyi sayyidina rajaana aju amaana amaana yowmala illa liman amanu amuñu ku dul mawlaana inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barke Seydina Muhammad barke Seydina Muhammad délégué sëriñ Babacar Sy barke Seexul Xadim barke sëriñ Fallu Mbàkke wa axiri daaxwaana alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu مدعة العدفاني يا سيدي يا سيدي يا سيدي من لي بمثلك للفؤاد العالي يا سيدي يا سيدي يا سيدي سيدي جان وفايق لوي جمونو من أن جزاك ربك عن بني الأوتان وخل أمين ثم صلاة على النبي وآله من ربي ربي العنان ما قال أحمد للتجان منسدا فإليك يا ابن محمد Bienvenue sur Salam Vision.